Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche bu nu xoolee bu ñu ñëwee si combat yi jot a taxaw Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye Gris Eumeu Sène Bombardier donte yenn yi sax ci ci wax la ak euh, Sa ak kii nga xam ne mooy Garga ak Boy Niang 2 yooyu combat noo ko jàngatee ay combat yu war a neex saison bi di ñëw war na mën a neex de per waaw combat yi yëpp a neex. bu fekkee rek yàlla def na saison bi ubbi euh, arène bi raisonnable jaar ci yoon combat yi yëpp neex combat yi neex na euh, combat Boy Niang Tapha ñaari njool lañu yoo xam ne si ñaari ñaari bërëkkat lañu combat Balla Gaye ak euh, Gris Bordeaux ramasse la komba Ama Sène ak Bombardier ramasse la Sa ak euh, Garga Mbossé li wala fi wax combat jànq combat jànq la te it ñaar lañuy njool la ñu yoo xam ne ñaari bërikat la ñu mën nañoo bëri ba ba ba naaw jël dooraam combat bu neex la boo xam ne si àdduna bi ñoo ko soxla fi mu ne ndax dafay def dafay dekkal lam combat buy dekkal la parce que ñaar ay mbëri bërikat lañu la ma masa di toog a euh, langsaana ñuy waxtaan fekk bi ko Serigne Ndiaye daanee ma dem di ko masawu ji këram ñu toog di waxtaan ma ne ko ah man dem mu nekk am naa lu ma naqari mu ni ah man de démb damaa ñëw reer kontaan lool ma ne ko lu tax mu ni damaa bëri yi ma waroon bëri yëpp li ma def ba sama xol sedd ma door a daanu comme bëri naa ba sama xol sedd ma daanu nag aw ma dara lu ma ciy naqari le combat bi noonu loolu loolu moo ma ci neex ma ci la ba ma xoolee li mu wax dafa dafa jaar yoon waaw parce que euh, làmb jël dana am mu naqari jël dana ñàkk am mu neex parce que day am combat yoo xam ni ca bu njëkk ca bu njëkk làmb dañuy gis combat bu neex ñu bëre bëre bi bëre bi tàng ñu fexe mu na max niil pour nit ñu soxlawaat ko di ci di ci waxtaan di ci xeex ci mbedd yi combat bi dañ koy dañ koy tëggaat combat bi dañ koy tëggaat bu ko defee mu nekk loo xam ne lu rëy lu rëy la loolu dafay dafay am day am euh, combat yoo xam ne mi ngi demee ne Moussa Diame ak Robert combat bi yàlla dogalul mu sotti mais bi bi mujj bee gën a gën a xumb moo gën a bari nit ndax combat ñaar ñu doon ànd ba yàgg ñu ñu coowaloo ba di bëre bëre ñëw ci seen diggante combat bi dafa mujj ëpp ëpp ëpp loxo euh, seen xeetu séréer yi ñele xeet bee ànd ak ñee ñee xeet bee ànd ak ñee mais dafa neex dafa neex ci ñiy seetaan si làmb làmb bu amul guerre euh, neexul làmb dafay am guerre day am seetaankat yi dafay am lu luñ ciy soxla mhm. day neex lool mais làmb yoo xam ne si jël mën na am te itam euh, doo gis bëree mhm. mm, neexul de neexul neexul am na ay combat jànq de ay combat xale de ak euh, Franc ak kii de euh, Garga 2 ak Mama Lamine yooyu tam ay combat yu war a mën a neex la de Tyson 2 bërekat la xeexkat la Franc ndaw la moo gën a féete ndaw am na doole am na kattan mais làmb nag loolu moo koy neexal ba kii am na lu mu mane kee am na lu mu mane kon euh, bu ñu dasee combat ba mën na neex lool lool lool lool lool Garga 2 ak Mama Lamine ñaari bërikat lañ bëri man nga fa comme li ma la wax ci Garga ak euh, Sa moom laa lay wax ci combat boobu combat boobu ñaari bërikat lañ ku fa dem bu xawee yeex tuuti nit ñi danañu doyal combat bu neex la ñaari bërikat lañ Mama Lamine dafa mën a bëri Garga 2 kenn kenn kenn waxatu ko moom mbër la champion la mën na bëri. père yow yàgg nga ci làmb ji car macha allah lu bëri euh, jaar sa kanam nga xam lu bëri tamit même boo bëriwul <laughs> li ngay wax combat yi nga mën a seetaan père mën nga ñu limal ñaar ba ñett si combat yi la gën a marqué ci ci yi yi jot a jaar sa kanam yëpp yàlla ñaar wala ñett combat. yi ma gën a marqué mooy yoo xam ne wala maa ko engagé wala combat yi ma gën a marqué. pas ko engagé wul mhm. ba ci tolluwaayu combat ba daal mu tolloo ah, na mu na waaw euh, euh, bi ma ci gën a neex. Mhm. muy ñaareelu combat Robert Mbaye Gueye Assane Diouf. Mhm. waaw booba man dama supporté Robert. Mbaye Gueye daan ko jël bu gaaw. ñu war a def ramasse. combat boobu dafa ba léegi dama koy dama koy xool dama koy xool ci ci ci ci image yi tey day mel na mi ngi ci sama kii bi parce que bi bi pour man xam naa ne combat bi tey bu ñu tasee bu ñu baree rek li ma yaakaar Robert dana ko daan yàlla def yàlla tuddee ko noonu combat boobu bu ma gën a marqué ci ci làmb moom la beneen bi ci des Moussa Diame Robert même dama faroon nag musa Robert nekkoon xaritu Moussa jàmme nag mais faruma ak moom mais xaritu Moussa Diame laa dañ doon demante di dikkante muy sama xarit mu xam na ni moom mais xam na ni sama xol Robert moo ci ne mais boobu dama far ak Robert combat bi bi muy bi muy bi ñuy nekkee ci diggu bëre bi bi ñuy waaj a am na sama benn xarit yàlla na ko yàlla yërëm bàcc gisee ti ma téye woon ci simisam nii xotti naa simis bi te yëguma ko kon <laughs> combat boobu ba léegi duma ko fàttaliku dama koy dama koy fàttaliku Tyson Moustapha. Tyson Moustapha Gueye pourquoi boobu marqué ma. pourquoi boobu marqué ma Tyson mi ngi door a jóg. ñu bari ci fi mu dëkk sax. dañ ni Moustapha ko man man ma jàpp ni Tyson a man Moustapha. waaw fi ma ko tegoon. Tyson Moustapha moo gën a moo gë moo gënoon a ci jamono booba. moo gënoon a xew. Mhm. mais kii moo ko sudorlons. kii moo ko gën a ñeme. te te it Moustapha dafa def dañu ci jamono yooya dañu def woon ni moo ëpp lay jàppale Tyson te ma xalaat ni man booba Tyson moo ëpp la jàppale jàppale yu yu nit ñu xamul ñu bari nag jàppoon ni Tyson euh, Moustapha daf koy dem daan ko mais man jàppoon naa ne bu ñu àggee bu làmb amee rek Tyson dana ko daan ba yàlla def Tyson daan ko keroog bis boobu euh, dama kontaan ma kontaan dama kontaan ba jooy Mm. rafet na léegi nag ñu jeexal ci wàllu CNG mënuñ ci bañ a wax Alioune Sarr a dem dafa a toog ban mooy ci sa position yow. ñiy wax dem fu ko teg du koo ci dégg mu wax Alioune dafa war a dem dafa koo teg kii nii yàgg na fi yàggaay bi la lu yàgg bala fi dañu wax ne lu yàgg dëgg la te nag man fekk naa fi ñetti fédération fekk naa fi CNG. ba ci bi mu ji muy kakalaaf moom bi bi Alioune Sarr remplacé bi fi kakalaaf di jógee par ña euh, saison ñaari làmb mooy am ñetti làmb xam nga loola du du saison bi mu ñëwee mu téye ko jële fi jaasi jële fi gobar jële fi euh, bor jële fi bon andi làmb ci civilisation boo xam ne si ëpp na limite boole ko ak kom kom bi mu ko booleel nag moo moo indi coow nii tey bu ci kom amul woon dañu waroon Alioune Sarr bu ku doon dem sax tey dafa war dañ ko war a ñaan ni ko ni ko bul dem waaw dañ ko war a ñaan ni ko bul dem mu toog parce que euh, affaire da ko yóbbu foo xam ne si yóbbuwaat ko fa dana jafe dafay war a am ñu mu ñu mu ñu gunge leen boo ñu awa am xaw am xalaat bi tuuti mu door a dem mais fii mu nekk ni bu rocc koo li mu defaroon yëpp day tas waaw waaw loolu laa jàpp léegi ndax ñiy wax ne bu yàlla defee mu dem ndax ndax yàgg-yàgg tam dina dem bu bu demul ci mandat bi xanaa yàgg-yàgg dina dem euh, bu demee ñiy wax ne mbër war na ko wuutu yow jàpp nga lu per mbër nit la comme comme comme comme comme yow comme man mbër mu am xel te mën a liggéey war na mën a liggéey loolu mais itam du du jaaga ni diw mbër la sénégalais yëpp mbër la ku dul mbër amul ci sénégalais kon nag mbër war na mën a yor lu ne mbër war na mën a xalaat xalaat bu ne euh, dama masa toog ak Tyson booba mi ngi ci combat am ak euh, Daouda Top ñuy waxtaan mu ni lamb war na mën a dem ba cent million ma ni ko bàyyil waxi dof hmm. xoolal waaw moom Tyson du ma ko fàtte mukk mu ni làmb war na mën a dem ba cent millions ma ne ko bàyyil waxi dof loolu kenn du ko wax làmb du dem cent millions gis nga tey te maa ko ci jiitu maa ko ci ëpp xam-xam mais xalaat ba ñëw na damay dégg ñi diw dafa far fenn Alioune bi ñu koy fal dafa fa nekkoon écurie Séeréer dafa tekki ndoom ba am continuer liggéey liggéeyam nit nag da ngay euh, gëm dangay gëm li ngay def dangay gëm ni lii ay nit la ko tekki ko jox la ko nit ñi la ko jox gënoo leen ëppoo leen doole dañu am yaakaar ci yow yaakaar boobu nag moo lay war a yokk jom moo lay war a yokk fullaak fayda moo lay war a yokk lu bare bare bari ba sénégal yi li ngay def ñëpp am ci gis-gis tey xaccoo bi yëpp du dara lu dul neex dafa neex de dafa <laughs> dafa neex rek ke ku nañ ma ko ne nañ ma ko jox waaw mais man-man bi jafe na le man-man bi jafe na trop parce que Alioune Sarr diñ na Alioune Sarr am na fulla Alioune Sarr wayaf na parce que Alioune Sarr bu ñëwee làmb bu làmb ji tas sax moo fay mujj tere naa ko loolu ba tay ma ne ko président bu làmb ji tasee ñibbil mu ni ma na nit di yore mbiram mu tas xamula problème am na wala amul ngay dem di ñibbi buñ la wa wooy waawaatee ni la problème am na loolu ma ne ko ah, loolu de xalaat la mais euh, am na lu mu man waaw kon nag euh, nañ ko jox ay nit mu jàngal leen li mu man ba ca kanam tuuti mu door a rocc ko de mais bu rocc koo rek li mu defaroon yëpp day yàqu leen